Assalamualaikum. Ah, sao mane ma này? Là được ma này. Ma này nó cái gì bay anh chị dâm. Nó cái dâm bật đi ba pun. Mà dâu nói dia ban ban ban. Ba chúng chị dâm này. Sao cho ăn cái đuôi mình ta. Ăn à? Lấy anh chị bé chị bầu. Khả năng ăn Am deception sama Bob. Saatnya dia tak sama. ah Sadio non question la damay laaj rek dangaa takk soxna Sadio Mané yaa ngi fàttaliku suñu réunion daaw ba ñun entre célibataire to bouche majoré nga ne danga ñu gunge ba ca kanam Sadio Mané nga xëy takk jabar fa Sadio noonu li noonu ñu ko mën a defee yow tamit nag mësuma koo gëm wallaay archi mësuma gëm na takk gis naa vidéo yeeg collage yeeg fépp bu gone gi de moo tax ma gëm ko borom leer bi ku dër ki nekk TFM Abba la boobu da laa gis mu dugal ko ne la jour ménage happy birthday to you waaye noonu ma ne ko na <laughs> gëm dëgg la kon finalement takk nga waaw góor loolu moom yàqul góor moom xanaa dañ lay féliciter rek alaaji huyma suñuy penalty yi coupe d' afrique gi yow it fexeel nga wut koo ñu joxal nag dégg de jabar mun ànd ak tiré penalty de àndul takk jabar ay responsabilité la bu ñu dollee jox lay penalty responsabilité yi day gën a lu dégg nga de waaw Kumba Sadio Mané nuyu ñu ma dem dégg nga lu dem yàlla nag bu xalaata dem te demoo ba ba ñëw dégg de waaw góor boo demee ba dem aju gi moo xorobu rek Sénégal ndekk am na ñu muusul de am na ñu muusul daal dama xëy fajar ñu envoyé ma message na ma daa am ñu nekk YouTube tuddee seen ku nekk YouTube tuddee boppam bërëm réew mi def même photo waaye day wërti ci direct yi rek di défendre Macky Sall ma <laughs> ne ko loolu de ce n'est pas un crime moom <laughs> ndax man mii sax jàpp naa ne Macky sàll bu ma gisoon lu ma ko défendre mën naa ko défendre man ku ne ci yoon rek mën naa laa défendre ku nekku ci yoon ma recadré loolu doom mooy sama liggéey <laughs> waaye daa fekk ni daa am luñ boole ci wax ji loo xam ne moom gëm naa ne fii ba àdduna tukki kenn du fekk borom réew mi mu koy def mooy dégg naa dangay dugg ci dëgg direct yi di saaga ak di wax lu ñaaw loolu doo foofu nga yàqee yëf yi de <laughs> man kay boo ma bëggee yàqal wala nga yàq sama der wala nga yàq sama image man nga ko defee nu ne mu jàll wallaay achi man nga ko defee nu nekk mu jàll waaye bu ñu la fekkee ngay saaga wala ngay wax lu ñaaw hmm? yow génn nga ci kii uh, conduite borom réew mi waa Sénégal sax ñoo la dul gëm nag <laughs> duñ la gëm daal boo ñu woowee sax ñu wax la ni ngay def ba yàqu ñu yaakaar naa mooy tànn waaye saaga ak wax lu ñaaw nekkuñ ci yooyu wallaay asim loolu duma ko def sax duma ko def daal duma saaga duma wax lu ñaaw de man nga ñoo yàqu ci yeneen anam yooyu moom bu tukkee rek dangay xaw a waroo Bukan pemaksaan membuat Anggap ada mainan atau Kita Begitu kalau ada pandai Malay asyik Barang game Dalam Masar Masar ni gen dewe ite baye jam am gen 2 minutes am gen Allah asyik macam macam kau yang sih mubla. Kau kau macam ada yang demi orang mana? No kesyor dah main aja. Yang gua nak gimai lah badan tiap bawa batai. Mana mub tak bisu dan dia bukannya mood bermain dah macam macam jadi masbi. Allah dengannya minit Allah dengannya cegon happy birthday to you. Buah mana telefon nama je bapa venir. Pukwa, bunda macam bapa mau gerak firman mau modern football zikip mau football sama lah kau yang kholek. Mana kalau je impossible je bapa kurasa. Yen wa Kër Massar li ngeen am ñëpp wallaay Achim Ndakaaru ñëpp bëgg ko am mën ñu ko am ngeen kan, am ko di fóotloo seen loxo yi ya, ak seen gone yi ak fóotum loxo muy méta pressing non damay laaj man ma nekk ba biir Ndakaaru chaque semaine ma yónnee ñu ma woote ñu jël si ma sama póot mi fóotal ma ko ba mu set livré waat ma ko yéen ngeen kan, dëkk Kër Massar mu jege bay bëgg Kër gi bay bëgg ngeen di seen gone yi fóotum loxo duñ ko wa mais qu'est-ce que c'est leen jox leen leen ñu fóotal leen seen yére yi yomb na ba dee mën nga ko toog fi nga toog woo ko kër ne ko sama caay ji daa tilim mu ñëw récupérer ko fóot ko indi daatal la ko loolu lu ci jafe bàyyi leen gone gi ngeen di fóotloo moom duma ko nangu moom duma nangu kenn di ko fóotloo fóotum loxo yéen est si di baax à l'école <laughs> en parlant de faute métapressing pot mi ngeen ma mujj a livré da am si bu mag bu ci topp du sama slip de natt naa ko waaye man xaj naa ci ñetti yoon <laughs> wallaay asib slip bu rëy la de bu may leen di joxaat sama póot mi di ñëw dinaa ko ci dugal ngeen wër boroom <laughs> wallaay asib mita pressing gone yi ñoo efficace rek léegi indil benn waay nag lañ fekk ci néegam moom nag deful woon dara da doon nekk di euh, nelaw loolu kese lañ mën a jàppandi mu jaare fa ñàkk bakkanam ana lool moo ko waral ba léegi ah, xam ne danga am copine xam nga copine <laughs> waaw wala nga am jabar rek wala nga am musée te nga bëgg kaa defal cadeau cadeau cadeau d'anniversaire wala happy birthday to you waaye Noël loo ci bëgg rek man ngaa ñëw jël ci coffre yi <laughs> wallahi achi man ngaa jël ci kofre yi waaw am na ay coffre yu neex yi yëpp màkka la jóge xam nga jidda jidda foofa la coffre yi jóge waaw am nay xeet yu neex coffret yi ngay gis ñu niroo nii ngay gis bokkuñu santeur de wallaay asim bokkuñu sax xeet ñoom ñëpp a neex <laughs> ni eh, coffret yu neex la daal daay man mii damaa koy jaay waaw bu la neexee bu bëggee jënd man ngaa woote ci 76 353 57 86 whatsapp whatsapp lekk lay dox nag amul appel normal dégg <laughs> yi gone gi di jaay num tudd sax eh, borom réew mi wandaay achi coffre yi muy jaay ñoo neex rek li